mooy saytu wàllum parrainage bi loolee sax jeex na ba tax na daal gis te ne kat am na ay ndëgg sërëx waaye tamit daanaka ñaar fukki candidat ak benn ñoom daal la ñu tànn ne ñoom kat ñoo war a jàkkaarloog juróom-ñaari saa yi nga xam ne ñoo nekk ca conseil constitutionnel ngir ñu mën a dëggal am déet li nga xam ne am déet mooy seen dossier waaye ñu bëree bëri yaakaar daal daalu dagaanu baatu askan wi ñeel campagne électorale bii ba tax na laataa loolu daal war na ñoom ab cutis bu nga xam ne kat day tax ñu dugg ci langu politique bi maanaam daanaka def na akub jéego waaye daal ñu bëree bëri gis ne kat ci wàllum quantité ak wàllum qualité am ñu ci ñàkk ñaar fukki nit ak benn ci ay candidat ci lu jege rek juróom-ñeent fukk ak ñett ñoom romb nañu ñàkk yooyu daal gis ne am ñoo xam ne kat daanaka doxantu nañ ci mbedd Ndakaaru yi waruñu dëkk dëkk dem fu ne ngir rek mën a waxtaan ak askan wi waaye ñàkk boobu daal gis nañ ne lu metti la ci ñoo xam kat seen candidature moom dina foor lool wala sax dafa mel daf koy géewal langue politique bii tax ñuy wax kon ñoo xam ne kat ci simila ak saa ñu leen bokk leen ama candidat yoo xam ne yaakaaroon na sax ci nii baa ci ne ñoom daanu romb am ñoo xam ne dañoo betteel askan yëpp waaye tam ñu gisee résultat yi nga xam ne kat moo tukkee ci parrainage bi li muy firndeel rek nekkat mbir mu du yomb waaye tamit ñu ngi xool ak ruube goo xam ne daal loolee kat du am àpp politique traditionnelle bi nga xam ne moo nekk ci wet technocrate ay manager d'entreprise ak i leader mouvement sociaux ak ëpp opinion loolee sax mooy ñeel ñi nga xam ñoo ay candidat profil yi bari na am ñoo xam kat yaakaar nañ sax waruñ ci mën a bokk waaye bokk nañ ci waaye lépp daal mi ngi dox rek ci seen wàllum gis-gis seen doxalin ak seen style de campagne ak ci wàllum jokkalante kon ñu yaakaar ne ci wàllum qualité candidat yi nga xam ne daal ñoo fas yéene dagaanu baata askan wi ñoom daa ñu mat sëkk ci ñi nga xam kat mooy wàllum intellectuel ak ci wàllum dimbal askan wi ak ci wàllum koom waaye tam ci aada ak cosaan ab fépp foo nga xam ne daal ñoom yaakaar nañ kat war nañ cee mën a daal xuus ba jaar ca waaye tamit sénégalais ñoom seen bopp daal la ñuy xaar rek mooy naam koo xam ne dana mën a rangul seen jafe-jafe